bi lool te ànd ko wér mu xamal ko ne ko dama bëgg nga wool ma mbooleem chef de village yu dëkki Touba waaye woowaale it meeru Touba ñu bokk daje ci kër sëñ Touba ga nga waxal ma leen nangam ak nangam ndigal loolu nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaxa jox ndigal Cheikh Mahamadul Bachir nag moo tax mu joxe woon ndigal ci ne nañ ko wool mbooleem chef de village yëpp ñu xam ne moom mii la Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha woo yónni ko ci yéen mboolem chef de village yi dëkk Touba ak li ko wër woote boobu nag Cheikh Mouhamadul Bassir woote lu ko waaye it da ca làmbaale mairie bi ndax kenn ku ne xam ne ne dëkkub Touba bi chef de village yi ak mairie bi ñoo ko seq wuutu sëriñ bi ci mbooloo mi Cheikh Mouhamadul Bassir it doon ki dox diggante digganteeg Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàgg lool dañuy njëkk a fob kàddu gi jox ko maire dëkk bi di Cheikh Abdou Lahad Ka moom mi nga xam ne moo jiite maire bi waaye chef de village yi topp ci ginnaawam mu dalal leen ñoom ñëpp su noppee ñu jox kàddu gi Cheikh Mahamadoul Bachir mu yëkkati ndigalul sëriñ bi nga xam ne moo jëm si ci chef de village yi ak population bi kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ Abdou Lahad Ka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Mountakha Bachir xalif sénat de Mouride mu yàgg te wér di ñaanal Serigne siida Abdoul Ahad sama Serigne mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne Touba gépp gannaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Bachiru Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor baatu yoon wi mu ne Sëriñ Muntaxa daf da ko jox ndigal mu woo ñu woo chef village yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yépp ak maire bi de Touba ma ñëw teew fi ak conseil yi fi teew nga xam ne ñoo fi teewal bureau municipal bi ñoo fi teewal conseil yépp sëriñ bi dafa amoon kàddu yi muy yëkkati ngir jëme ko ci dëkk bi sëriñ Cheikh Bassirou dana ci ñëw muy tàmbalee nag ci chef délégué de yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ñëw ci chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci village yi ci dëkk bi muy cent douze villages yi ñëw ci mairie bi bu ci war a jàll ci Serigne Bassirou bu fa jógee war a jàll ci Serigne bi nga xam ne mooy kilifa gi kon nag loolu moo tax Serigne bi woote ne chef de village yëpp ñu ngi nii teew kenn ku ci nekk sëriñ bi li li tax mu wootee dana la ko wax soo demee nga woote say délégué de yi nga xam ne ñoo concerné sa village jot li leen digal li ba bu ëllëgee lépp lu xewee ci kart bi délégué délégué de quartier bi xam ne responsable la ci war jot su ko mënee lu mën a lijjanti mu lijjanti ko su dul lu mën a lijjanti mu jàllale ko ci chef de village bi su ko chef de village bi mënee lijjanti lijjanti ko su ko munul lijjanti mu jàllale ko ci maire bi su ko maire bi mënee lijjanti lijjanti ko su ko munul nag mu jàll si ko ci sëriñ Basiiru Abdu Xaadir sëriñ bi lijjanti su jaree jàllale ci sëñ bi mu jàllale ko ci sëriñ bi ne nag maire bi maire bi yàlla dafa dogal sëriñ bi da ko yëkkati def jariñ ji sëriñ Sidi Mbàkke Abdul Ahad sëriñ bi yëkkati ko teg ma ci bopp maire bi ma ànd ak bureau municipal bi ak conseil municipal yi loolu moo tax lépp loo xam ne jóge na ci sëriñ bi war a jàll ci sëriñ si di sëriñ si di dafay taxaw ne dafay teg ay ndaw dafa teg ndawam ci maire bi ndaw loolu nag su waree mooy sëñ si di soo ci waree jàll ci moom jàll ci moom su jógee ci maire bi nag te maire bi mënul lijjanti ko bu day jàll ci Cheikh Bass bi nga xam ne moom la sëñ bi doxalee suñ diggante ak moom mu su su waree su ko waree jàllale ci sëñ bi moom mooy xam na mu ko waree jàllalee ci sëñ bi kàddu yooyu nag ak ni ñu koy tënkee ak lim ci bëgg a wax danañu jox Cheikh Bassirou dana ci ñëw yéen leeral ko mbooloo mi ba kenn ku ci nekk xam say responsabilité ak sab taxawaay ak li nga war a def ci ndigalal sëriñ bi loolu moo war a waraloon woote bi ñoo ngi nuyu nag mboolem chef de village yi fi teew di leen dalal. ci turu sëriñ Amsatu Jaxate mi nga xam ne moo ko jiite mu di ko di ko jox nuyoo bu mag mu jox ko délégué de quartier kenn ku ci nekk bu demee jox ko sa délégué de quartier say délégué de quartier jox ko population bi parce que loolu mooy mbooloo mi nekk ci dëkk bi loolu mooy waa kër sëriñ bi kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di leen baal àq salaamu wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk julli di bokki taalibe yi rawatina ñi dëkk biir Touba ak li ko war leen di nuyu ci ndigalul ki fi toogal Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba am ko ci liggéeyal lislaam suñu borom may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko ni mu ko bëggee sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di bokk nuyu bokk taalibe yëpp di jokk bokk lislaam gi nga xam ne moo ko booleeg ñi mu bokk lislaam te suñu borom santaane ko. innamal muminuun ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na itam ñu xam ne ni ko sëriñ bi daa waxe rek inna cheytaana lakum aduwun fattaxisuhu aduwan benn noonu rek lañu am muy kon mboolem ñu bokkal këri diine yi di këri lislaam mi ngi leen di siyaare di jokk bokku lislaam bi di jokk bokku der di fàttali it nag mboolem ñi nga xam ne bokk julli leen di bokki taalibe bi seen digg ñi ñu seqal lislaam jëpp ñu ci wax lu baax di ci wax lu rafet lépp loo xam ne mooy indi ak benn ji seen diggante ñu di ko gën a sàmm ngir xam ne ñoo bokk lislaam ji te ñoo bokk réew mi ginnaaw loolu nag sëriñ bi kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko jëme ko ci bokkiteel bi ndax lii mu ma sant itte ju ko itteel la itte ju ko ñor la moo tax ni ko sëriñ Abdoul Ahad ka waxee xam nga ne bi ak Cheikh Sidi Moustapha ñëwee la yëkkati woon dëkk bi dénk ko sëriñ Sidi bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw na itam yee salaat loola xamal ko ne ko ne ko ko Cheikh Sidi Moustapha dénkoon nu ko ëpp ni la ko ko dénke loolu waral Abdoul Ahad wax léegi ci turu maire wu dëkk bi ndax maire bi alali sëriñ bi loolu itam lu mat di fàttali leen ndax Touba bokkut ak yeneen dëkk yi ci des kon ñu ngi nuyu ñëpp sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne mooy taw sëriñ bi ñëw na ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko koy sante ci lépp loo xam ne liggéey bi dañu di ko ànd euh, ba lépp du mat bu noppee ànd leeralaat ko. kon Serigne Sidi nii ko sëriñ Abdoul Ahad Ka waxee rek noonu la demee moo tax Cheikh Mouhamadou taxaa nag santoon ma ne naa jot li mboolem yéen ñi nga xam ne yéenee chef de village yi ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi ndigal yi ndigal mu leen di bëgg a sant ne dafa bëgg ñëpp maase ci xam ne fii mu toog di jataayu Serigne Touba yàlla suñu borom. moom mi nga xam ne moo ko tànn teg ko fi te suñu borom wax ci alxuraan ne allahu ahlamu haythu yaj'alu risalatihi muy bëgg-bëggu Serigne Touba itam ndax képp ku fi toog rek Serigne Touba seet na seet na ko tànn ko ba mate ko mu teg ko fi nee na li mu fas yéene nag di ko xamal bokk taalibi yëpp ak bokk julli yépp mooy ne dëkk bi Serigne Touba da ko ñaan suñu borom ba suñu borom may ko ko muy dëkk boo xam ne. yàlla def na ci histoire ci taarix kenn mës sa fàttaliku fu ko nit moomee kon muy lu ko suñu borom dencaloon ba di taw fee xam ba yàlla def suñu borom jox ko ko nee na Serigne Touba ñaan fi mboolem li bëgg ci dëkk bi danaa ci dellu siwaat lépp suñu borom bay ko ko nee na ba Serigne Touba ñibbisi Touba bi Serigne bi ñibbisee nag mboolem njëkk fi masa wutu ñëpp. tàmbalee ci ci ko fi jëkk wutu di al cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci al cheikh Mouhamadou Fadil jaar ci al cheikh Abdoul Ahad jaar ci al cheikh Abdoul Khadir jaar ci cheikh Salihu Mbacké jaar ci cheikh Mouhamadou Lamine ba jaar ci al cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ba yàlla def moom mii lépp ndénkaan di nekk ci loxo bi nee na nag fas na yéene li ko ci war mooy na ko ñu jëkk ñi daa defe mooy wattu ak sàmm lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bi mu fa séene ko wattu sàmm ko ngeen xam ne ndénkaan lu Serigne Touba la ndénkaan lu nag nee na képp ku muy àndal dëgg lay ànd ak yow kunu maa maa al xaqi mahma kallafakum al amru moo tax waxam ji ji mu weesu yéen ñëpp ko déggandoo loolu rek la wax naa ko fàttali ci biir fàttali gi itam muy digal ñi nga xam ne yéene chef de village yi tàmbalee ko ci délégué délégué de quartier yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam danaa nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgg ni itam noonu lay def yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkonte ne mën na faa nekkal boppam moo fa nekkal boppam kon yéen ñi nga xam yéen lañ ko dénk nag tàmbalee kon ci délégué délégué de bi nañ xam ne fuñ nekk ñoo fa war a nekk ndawi sëriñ bi nekk fa ay loxoom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa na ko ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis du la xeeb coow dara ba xam ne yow mi mate nga jata jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñun dëkkal war nañ ñi gën a teg ndigal yam fi joxoon ndaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maa si gën a farlu gën cee góorgóor képp koo xam ne gis gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ca na nga ko war a saafara bu la ta chef de village ba la yërif nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barab war ngaa góor góorlu ci te taalib yi ndax loolu la fa bàyyi. bu tëyee chef de village ba mën a ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci kim teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg muy saytu ni dëkk bi doxe ci wàllu adduna bi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci quartier nga xam ne ndawul sëriñ bi dafa loo xam ne bëggati nga ko walla nga xalaat ko na nga dem ba ci moom nga àgge ko bu tay ñoom ñëpp nag danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam rek bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lijjanti te sëriñ bi du ko yëg fa saa sa def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la yoru moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon ci lifaam yu jëkk yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mi ngi ñaan ñépp ñu sàmmule ko loolu nga xam ne ndono la di ndénkaanu Serigne Touba ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma ndigal ne ma ñetti weer yu jotate mboolem chef di village ak délégué de quartier yi naay dajee ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool lu ñu ci mën a saafar bala ñu dajawal loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne Serigne jox na ko danañ ko sàmmonte kon loolu mooy le jiitu ci ndigal yi la ca desaatit mooy li mu ne bëggatu ko fee dégg mooy di saafaraan sa bopp loolu itam ñu ngi koy feddali waat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggante jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek naa fexe ba mu agsi ci sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu Porokhane ga mu fattaxatan lahumul abwaab jëmm la joo xam ne ubbalul ay buntam kenn fu waaye jógee rek boo agsee dana la diglu ak koo mën a doon te dana la jox ci waxtu loo xam ne sax boo gàttam xel li fi bàyyiwoo sëriñ bi du bàyyi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla def na kilifa la goo xam ne kilifa gu ma sëkk lam doon la kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel yàlla def it taw tawféex ci moom ndax képp ku fi ma si nekk sëriñ Tuubaa rek tërbiyewu na ba làq sa ngiram nam daan doxee ay kilifaam itam nag ñun ñëpp nañu fas yéene doxee moom noonu te yàlla defal na ko ci tawfeex ñëpp noonu la ñu doxee moom danaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeeg sama jëmm dama koy dama koy bàyyeeg sama jëmm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene ànd ak moom noonu ngir xam ne ku ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa googu kilifa ku ko yàlla defal war ngaa gën a daloon xel te koy ñaan waxtu wu nekk mu yàgg fi te ànd ak wér ngir xam ne moom lépp loo xam ne war na ko rek xam na ko te dana ko def ndax ba ci yi fi mujj xew ca tàmbali ba lam ci jëkk wax ba ca mujj la genn kàddu rek la dafa wax ne jàngoro ji mbindeef mu yàlla wàcce ci kaw suuf la waxtu woo ko jeexalee rek mu jeex nee na Sénégal tam ba ñu amee Serigne Touba rek la am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ni ku xam diggam ak boromam la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu mu ci ci saaxiir si rek daa bëgg a wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wane nit ñi fay jaar moo tax yii nag lépp lu ci xew rek def na ca war a def taxaw na ca la mu war a taxawi ci lu ngeen njëkk ak lu ngeen yëngu. bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci diggam ak soxla nit ñi ñëpp seenoo xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu ko kon la Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil daa wax rek bi ñu ñaanal Cheikh Serigne bu Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak soxna May daa waxoon ne euh, seelukat xamut li xaddi di dajeg ba ba ba ndox mi ak siw ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor yu ak ci ñun kat Cheikh Mouhamadou Mountakha tax kon nag yàlla na fi yàgg te wax na ma it nag ne mi ngi jot li taalibe yi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Serigne Touba loolu itam lu ko ñor la dane ma nag ma santal ñi ma bokkal Serigne Touba ndax liggéey Serigne Touba bii kat ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp laa di yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga yéene yéene woo ko sa bopp ñaan loolu yëg na ko mboolem ñi defaroon seeni maam dégg lim leen seeral wax na ne foo gisal la naqare bàyyi ko ci ñoom ñooñu itam na seen maam yi àndoon ak Serigne nañ ko moom ndax kenn ku ci ne addiye ja nga daa joxe yokk nga ko kenn ku ci ne itam yéene nga ko ndam yéene goo xam ne. boo soñoon ku fi jaar te am ndam rek moo ko ëpp nee loolu lépp nag na ngeen xam ne xam na ko waaye nag Serigne Touba mi tax ngeen àndeek moom noonu mu ngi leen ñaanal kenn ku ci ne la nga ko yéene ak la nga jëf ci moom yàlla na ko Serigne Touba fay taalibe Serigne Touba yi nag nee na ñoom moom dafa jàpp boppam ci biir taalibe yi ndax nee na Serigne dafa masa daje ca njaareem def bokk yi nii ci wetu ndajoor def taalibe yi ci wetu càmmoñ daane yéen taalibe yi na ngeen ma rus ci sama bokk yi ndax ñoom man rek lañ am daan yéen sama bokk yi itam na ngeen ma moytu ci sama taalibe yi ndax ñoom man rek man ñoom man rek man rek lañ ñoom man ñoom man rek la am nee na nag moom ba mu déggee wax jooju la jël boppam jaay ak njuréelam jënd ko taalibe jàppe boppam ci biir taalibe yi moo tax nag yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmaande jum dox diggéem mu ñoom ne itam mi ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen bëgg dimbale te nit boo ko bëggee dimbale danga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm na leen ndax cant gi ngërëm li mooy daaw fii lañ toogoon mu santaane fi ay santaane te boobu bi mu koy santaane itam dafa sëriñ Serigne Sidi muy jëriñam tegaat ko ci loxoom sëriñ Sidi wooluwaat sëriñ Modou Lo Ngaabu mu jër safir amaan tegaat ko ci loxoom muy tere yi mu doon tere ci dëkk bi nee na ba mu ko teree taalib bi yëpp yëpp yëpp maase nañ ci jëfe ko ba kenn desut nee na loola xam na ne seen bopp ngeen koy defal waaye nag moom mu fi nekkal sëriñ Tuubaa tas fàttali leen digal li ni ngeen ko jëfee sant na leen ci gërëm leen ci li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax booba itam lépp xam na ni mu demee ndax junjal na ko boppam leeral na ko kon jëru del siwaat waaye ba mu yëkkatee kàddoom kenn ku ci la nga doon def da ko bàyyi wëlbatiku la la naqari woon nga def ko muy loola neex nee na loolu nag xam na ko kon nag mi ngi leen di ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon Serigne Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal tawféex te xam ne Serigne Touba kat waxoon na ne waxtu ma sante nit def day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal nag day dellu siwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye aw fu ma ne kon jëfe ndigal rek am solo kon nag Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci dëkk bi xam ne sëriñ Touba kat. ba muy gàddaay di sanc dëkk bi dafa am lu taxoon mu sanc dëkk bi dafa waxoon ne daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax na itam li tax ma sanc dëkk bi mooy jàng ak jàngale ak ak tërbiyo nee na loolu Serigne Touba sosi woon dëkk bi nag waxtu wu nekk nañuy fexe ba ba nañuy fexe ba góorgóorlu ba di ko sàmmali li taxoon mu sanc mu sanc dëkk bi ba képp koo xam ne gis na ko dëkk ci dëkk bi rek bu la gisee xam ne kii kat yorub dëkk bi la te loolu Serigne Touba faggul nañu ko la ca des nag jug jug jëm cee rek lay doon la ca dolli ko waate mooy dëkk bi dëkku xéewal la Serigne dafa ñaanoon suñu borom ne ko ci mat la u foofu ni wa maskani salli minal fujjaari wamnuna ala al ahli bima in jaari kon yàlla nañu yàlla musal ci ñi dëkk ci dëkk bi te fi nekkee lu neexul sëriñ bi nit ki nga xam ne dafa ñaanoon ne waj wajbuluha alxayra min aljihati assiti wakfiha an il afati loola war a Tuubaa lu jamono naqari naqari lu mu diis diis doo dégg doo dugg ci génn kër ba xiif wala nga mar loolu pàggatefu Sëriñ Tuubaa la moo ñaanoon suñu borom bi tam xamal ko ne ko wax ne wali siwaaya yantahi day day xus zaman xat-xat xat-xati jamono jëm na ci futu man tayifa ocha yi tayifa xoda yi kon nag la ca des nee na xam na ne Serigne Touba dafa woote wax na yaa ahla barri yaa ahla bahri honjoli bari bahri soxaay bi mu wootee nag ñëpp a ñëw bi mu wootee ñëpp a ñëw ku ne nag fa nga jóge da gàddaay indaale la nga yor looloo waral kon dëkk yu bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañ xam ne fàgguteefu Serigne Touba boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam. moo dox suñu borom may ko loolu ni mu ni mu fàggule fàggulee kaaraange rek wax ne wan fi ba ba wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha looloo waral mbas mii fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne butul woon nag li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon bu toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek ñëpp dañu ko war a def kon waaye jàngoro ji ku dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni mu bindoo danga xam ne sëriñ tubaa aar na leen ci loolu kenn nattabloo ko boo xoolee ndakaaru euh, li mu ëppee boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp fii kon loolu lépp itam ñoo xam ne pàgguteef sëriñ Tuubaa bu mu fàggul waa dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yamalu ala daawuda shukran li ñuy fayee Serigne Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag Serigne bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mi ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee li mu santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexa ba gën a sekkar ci tiwo yi yooyu yëpp itam na nga ko defoon euh, Serigne Cheikh Abdou Latif moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góor góorgóorluwaat ci fexe ba nañ ko defoon ànd ko njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbo ci jiitale Serigne Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la ko tegoon ci loxoom euh, buñ ci àggee lépp dis na ko leeral ndax dëkk bi itam ku fi ñëw rek yaakaar la fi indi ndax Serigne Touba dafa wax ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi moo tax Serigne bi bu sañoon kenn nekk ci dëkk bi du tumuraanke looloo waral itam mu ngi sant taalibe yi nga xam ne. ñuy góorgóorlu ci biir loolu ndax lu mel ne waa Touba ca kanam xam ngeen ne diggante daaw ba ren jëf yu bëree bëri jëf nañ ko ci dëkk bi ci wàllu leeral dëkk bi wàllu setal dëkk bi wàllu jëmbat fii garab di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi muy maire bi di Abdou Lahad kon ñoom itam sëriñ bi ngi di sant di sant mboolem daayira yi nga xam ne quartier yëpp boo dem li jamono ji xewal ngir bëgg fépp set Touba ñoo ci jiitu ndax ba ñuy xewal loolu yàgg na te lépp itam ci pëstéef lañ koy def yaakaar payug suñ Tuuba amu ci kenn koo xam ñi la ci joxub dërëm kon sëriñ bi nee na taalibe yi daal mi ngi leen sant leen gërëm di leen xamale itam lim leen ëmbal mooy yërmande lim leen àndal lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp jariñu lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp seen digg sëriñ Tuuba seen pëstéef waxtu wu nekk muy gën a yees di gën a sell te loolu nag sëriñ Tuuba mel leen fàggalu ko taalibe yi kon nag ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di fas yéene itam ñi ko sëriñ bi santaane ñëpp gën a góor góorlu ci loolu te xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu jëriñ te sëriñ bi kat ku am ci ku am ku am yërmande ci nit ñi la ndax koo xam ne amul waxtu wu noppalu saa su xëyee bu guddi ginnaaw jaamu yàlla yi ma nga ci liggéey ba di tey nit ñi loolu nag sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon ndax moo waxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Farid ne leen seenu jaamu yàlla ci ëpp ginnaaw li yàlla san farataal ci yéen mooy eh, di jonjoom nit ñi di dékku seeni tartar ak seeni métti métti kon nag képp ku bokk ci Serigne Touba ña nga dëkkat di taalibe Serigne war ngaa fexe bay xam ne li la Serigne Touba sant ci sa digg ñoom ndax waxoon na ne li ma leen warlool ci seen digg yéen mooy ak yëg ak itteewoo leneen li ci lépp maa koy defal sama bopp kon nag loolu na ko ñëpp xamee noonu kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.